di xalif général des Mourides di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér waaye di ko ñaanal mbokki jullit yëpp mbokk yi yéen a ñuy teewlu ci seen chaîne bi nga xam ne moom moo di euh, GMK TV muy grande mosquée bu Touba ak MK TV muy Muxaddamatul Xidma fii ci euh, grande mosquée bu Touba ñu ngi en direct ngeen ñuy teewlu tey jii ci àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci muharram atu 1445 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo le 9 août ci jotaay bu am solo boo xam ne moom lañ fas yéene ànd ak yéen waxtaanee ko ngir leeral ko ñi nga xam ne ay mbokki jullit lañ ñi nga xam ne ay mbokki taalibi lañ waaye ñi nga xam ne dañoo bokk réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal rawatina ñi nga xam ne dañoo bokk ci yoon wi nga xam ne moom moo di yoonu morit mu nekk ponk bu am solo boo xamante nii daañu ci ñëw incha allah waaye balay loolu dañuy présenter ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi laataa ñuy ñëw ci thème bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee waxtaane mu nekk thème boo xam ne nag dafa soxal ñëpp niñ ko leerlee sànq ñu am mbégte nag di dalal ci plateau bi ki nga xam ne moom moo di euh, président Cheikh ñaan nekk président bu tribunal départemental bu Mbacké incha allah dina ñëw ci ay ponk yu am solo yoo xam ne moo jëm ci thème bi ñu fas yéenee waxtaanee. waaye ñu dalal it euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar moom it bokk ci ñenn ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéeyub daayira mu xaddamatul xidma te nga xam ne ñoom ñoo yor jumaay euh, Touba ji muy jumaa ju mag ji armeel yeeg euh, ci aajow waaye it mu feggoo ki nga xam ne moom moo di sëriñ Makhtar Kane moom bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo yor liggéey yi nga xam ne moo jëm ci daayira mu xaddamatul xidma ak li nga xam ne moom moo jëm ci armeel yeeg la ci aajow ni ñu ko waxee sànq. waaye mbokk yi euh, li nga xam ne moom lañ fas yéenee waxtaanee mu jëm ci euh, liñ naan ku ne dund ne faatu ndax ñoom ñoo ànd ku gën a àddina rek bés da nga ñëw nga bàyyi koo fi waaye boo fi bàyyeekoo am na yoon yoo xam ne fa lañ la war a jaarale keroog ba nga gën a àddina yoon yi nga xam ne fa lañ la jaarale woon ba tey defaral la kayit ñu mën laa reconnaître fii ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal ñu xam ne sa nationalité sénégalaise la. nga mën fee amee carte d'identité ak yeneen yi ci aajow waaye nit ki nit ki nga xam ne dafay bàyyeekoo wujju suñu boroom am na yoon yoo xam ne it fa la war a jaar ba keroog ñu koy denc muy ci wàllum këyit waaye tamit loo xamante ni dafa jëm ci euh, ni ko lislaam jàngalee noo xamante ni yoonu murit noonu la ñuy doxee euh, muy fii nga xam ne moom moo di ci Touba nga xam ne loolu yëpp dañ cee tënku waaye muy liggéey boo xam ne dañ ciy ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor fànn googu kon leeral ko ñi nga xam ne. ñoom ñooy am ñi génn àddina ñu war leen a denc ñu leeral leen yoon yi nga xam ne fa la ñu war a jaar ak li nga xam ne mënu cee ñàkk ba nga xam ne bu ñu leen indee ci bërëbu sell bi yi nga xam ne moom moo di tubaab bëgg leen a denc lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàllum këyit wala lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàll lu ñu war a sàmmonteeg moom daañu ko matale euh, ba li nga xam ne moom moo di ay réeroo du ci am euh, ci loolu dañuy njëkk jox kàddu gi euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar sëriñ bi ginnaaw boo nuyoo rek euh, ñu boolewaale ci suñ question bu njëkk mu mel ni euh, ni ma ko leeralee sànq réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal am na ay loi yoo xam ne moom moo fiy dox ci loolu lañuy tënku euh, mu jëm ci wàllum ku fi bàyyeekoo ak maanaam yoon yi nga xam ne ci lañu war a jaar ba keroog ñu lay denc waaye am na ndaje moo xamante ni amal ngeen koo kilifa yi ñu doon waxtaan ak yéen. du ne waa Touba rek waaye am na euh, kilifa yu bari ci réew mi ci bërëb yoo xam ne dañ fay denc ngeen amal waxtaan ñu indil ay leeral mu jëm ci loi yooyu noonu ngeen indi ay weccontee xalaat ci li nga xamante ni moom moo jëm ci ñi fi bàyyeekoo ak ni nga xam ne noonu lañ leen di denceek la ci ajo kon dañuy dañuy ñëw dañuy dañuy ñëwal rek ci euh, ndaje moomu naka la demee woon ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa teewoon ak li nga xam ne moom ngeen fa euh, jëlee woon laataa ñuy xuusaat ci biir. jërëjëf aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wasalaamun ala ibadihi alladina stafa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Fadlu ñu ngi nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu bokk ñiy seetaan yëpp di leen ziyaara di tàmbalee sunub nuyoo ak sunub ziyaar ak sunuy ñaan ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul am li taifatil muridiya di ñaan suñu boroom mi dara tawul mu yokk aw fanam yokk ak wéram defal ko jàmm jàmm yaram ak jàmmi xel ak kattanu yaram ak kattanu xel ba fi mu bëgg a yóbbu liggéeyam Sëriñ Tuubaa yi ak naal yi nga xam ne naal na ko yëpp suñu borom may ko mu àggale ko ci sagoom te nu ànd kook moom di nuyu njabootu Cheikhul Xadim gépp di nuyu itam kilifa yi diine yi ci réew mi yëpp waaye di nuyu bokki taalibe yi yëpp itam. ci jataay bi ñuy nuyu sunu gan gu tedd gi nga xam ne moom la ñu am di kilifa gi toog di Serigne Cheikh ñaan di président tribunal bu départemental bu Mbàkke ni nga ko waxee léegi waaye itam bokk ci njabootu sëriñ bi di ci ay waajuram ci ay maamam ba léegi ñu ànd ak Cheikhul Khadim bu doon tawféex ju réy ci yàlla dogal mu dajeek bu dogal bu mel nii amee Euh, bokk gi mu bokk ci yëf yi ak taxawaay bi nga xam ne moom la am ci yoon wi ay maamam amoon ko ci démb ak barki démb day tax ñu mën a jot ci moom donte ku ñàkk jot la donte ku xat la mu mën a teew ci sunu kanam leeral li nga xam ne moom la yoon tënk ci yu demee nii yaakaar naa bu ñu fàttalikoo seqoon nañ moom ak moom ay jataay ci wàllu sëy yi takkum sëy mi ci barab bii ci jamono yi ci gannaaw ci loo xam ne lu jekke woon jekki dal ci sunu kaw la comme ni nga xamante ne bi lii ñuy waxtaane tey ni la jekkee jekki dal ci sunu kaw euh, ngir tontu sa laaj boobu nag lii dal ci sunu kaw mooy lan mooy dañoo nekk ci biirum réew Serigne Saliou dafa daan wax ne Touba ci biir Sénégal la bokk dégg nañ lu kàddu googu itam ci lam ñu Cheikh Mouhamadul Mountakha boo ne tubaa ci biir senegal la bokk donte nag am na cër bu ko yàlla cërale boo xam ne xëy na du cër bu maase boo xam ne ñépp a ko am waaye teewul nag doomu am am ab cër ci biir réew mi ci biir réew mi la bokk li dënk réew mi daf koy dënk ci yu baree bari fi ak nekkul loo xam ne lu juyoo la ak lislaam ñu gis nag ne jamono dafa dox ba àgg foo xam ne xew-xew yu bari na te xew-xew yi am léeg-léeg mu nekk xew-xew yoo xam ne yu doy waar lay doon euh, faatu yi bari na léegi faatu wi nii it bari na fu ne it la nit di jóge di jëm si ci barab yu mel ni yu Tuubaa yi ñii ñëw it léeg-léeg buñ ñëwee duñ wax dëgg-dëgg na mbir ma deme dañuy ñëw rek déclarer te yow mi fi nekk lañ la wax rek. loolu nga mën a jàpp mu mel ne nag yoon tëraloon tëraloon na loolu ay yoon bu yàgg yàgg yàgg waaye ca jamono yooyu nag lii xew léegi dafa xewutoon ci faatiku bakkan yu bari yi ci jafe-jafe yi nga xam ne day am ci biir njaboot yi te lu ne mën caa bàyyikoo te léeg-léeg nit faatu ñu jàpp ne faatoom dafa jot rek mu faatu ndeke loxol doomu adama dugg na ca ñu ñëw denc ko ba noppi leneen jebbiwaat ca ginnaaw wane ne moom kat ki ñu faat ki faatu ba ñëw bañ denc ko nii te ñu wax ne faatoom daa jot mu faatu am na lu ci xew loola nag léeg-léeg day faral di am te bu amee yoon day ñëw sulliwaat ka faatu woon yóbbu seeti ba xam la wax lu wér la walla déet loolu nag dem bay bëgg a bari ci réew mi ci la nag nguuru senegal daan yoon yi nga xam ne tënkoon nañ ko ci wàllum néew nañu ko génnewaat teg ko moo nekk loo xam ne léegi dañ koy imposer ñëpp kenn dootu sañatee denc ab néew te jaaroo ca yoon yooyu te bu ñu it dal koy def dañoo daldi woote barab yi nga xam ne moo ëpp lu ñu fay denc ci senegal yàlla dogal na Touba yi ci la bokkoon euh, ñu woo mairie ba Touba woo ñi nga xam ne ñooy saytu armeeli Touba yi di Moukhaddamatoul Khidma ñu yebaloon Serigne Makhtar Kane mi mu dem teew ca ndaje moomee ndaje mee def nañ ko ay yoon yoo xam ne ay séminaire la ngir jàngal leen ni yoon tërale ku faatu nu muy demee nan lay pan lañuy jaar ba denc ko ba ñu ko defee nag ay yoon ci la wax nag ne léegi ginnaaw dajale nañ Ndakaaru Tiwaawoon tuuba Kawlax ak mboolem armée yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ñoo ëpp lu fay denc ci Sénégal te loolu ñoom lu ñuy xam lay doon wax leen ne leen nag léegi kon yéen ñëpp amatu leen sañ-sañu ñàkk tënku ci lu mel nii na ngeen di doxale nii waxtu wu ne nag danañ ñëw di seet si ba xam ndax lii ñu leen wax yéen a nga koy doxal wala déet su ngeen ko doxalee fa lilahi alhamdu su ngeen ko doxalut nag jafe-jafe boo ci amati ci seen kaw lay këpp loolu nag nekk loo xam ne lu day waar la te metti te tiis ndax jafe-jafe yi ca mën a tukkee duma ci sori président dina ci ñëw léegi mm-hmm. euh, yu metti la yu tiis la te mën naa gaar ku ne mm-hmm. ci loolu nag Euh, bi ñu demee ba war a tàmbali liggéey bi ñu ne bis sangam lay tàmbali ñu tàmbali liggéey ba mu am ay jafe-jafe lool ndax nit ñi bu mbir xewee jékki-jékki rek nit faatule indi am néewam fekk fi lu mu fi daawul fekk day nekk jafe-jafe su boobaa day jàpp ne ñii mu fekk ñoom ñoo tëral doxalin wi ñoo jékki-jékki soppi te waxuñ ko nit ñi ñoo jékki-jékki def nangam mm-hmm. fekk na mbir ma def leen a tiim mm-hmm. li ñu fi liñ liñ fi fekk du waa Muxaddamatul Xidma ñoo ko doxal du waa mairie bu Touba ñoo ko doxal waaye daf leen a tiim réew mi moo ko doxal. te ni mu ko doxalee ci Touba na la ko doxalee ci Ndakaaru na la ko doxalee ci Kaolack na la ko doxalee ci Louga na la ko doxalee ci feneen kon nag bu boobaa day laaj ñu ñu ñu nit ñi xam li indi soppet gi mm-hmm. bi loolu amee nag sëriñ bi nga xam ne moo yilif ñëpp di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal lool te may ko wér woo ki nga xam ne nag lépp luy yoon te yoon ni nga ko waxee léegi état moom bokk ci. mooy nit ki bu juddoo ak ba mu faatoo diggante boobu ak lu mu fi def. lu nekk day am lu mu ci seq ak yoon. woo ki nga xam ne nag moo jiite yoon ci département bi muy sëriñ Cheikh Ñaan mi toog. wax ko ne ko dafa bëgg mu dajale maire bi ak chef du yi ak ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooñu la ñu dénk lu demee noonu ci dëkk bi mu waxtaan ak ñun xamal ñu yoon yi nga xam ne ci lañ war a tënku ndaje moomee moom président Serigne Cheikh Niane mi teewee na ko procureur bu Njaareem teewee na ko mhm. maire dëkk bi di Abdoul Ahad teewe teewee na ko ay adjoint maire am itam teewe nañ ko waa Moukhaddamatoul Khidma teewe nañ ko chef yi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi itam ñi ñi fi ñi jot a jàppandi ñëpp teewee nañ ko ndax dafa am loo xam ne ba ñu jógee ca ca séminaire boobu ëndaale woon nañ ko te mooy ne nit ki bu faatoo ci ab koñ chef du village ba mu dëkkal mën naa bind wax ne kii fi la faatoo nangam la tudd nangam ak nangam ak nangam kon mën nañ koo denc te faatu gi amul benn jafe-jafe loola la ñu àndaale woon euh, ndax loola moo nekkoon ca texte yi ñu bindoon waaye nag ràññale da caa am ndeke goo xam ne ñi fi fekk xamuñu ko woon ba ñu fe ba ràññale googu amee nag te ñi fi fekkoon xamuñu ko woon moom mii nga xam ne moo fi nekkal yoon mu gàggante ñu ca gàgg ca loole jubbanti ñu ci xamal ñu ne loolu dëgg la mën naa am waaye nag ci chef de village boo xam ne nekkul ci biir commune wala nekkul ci biir chef-lieu de arrondissement. loolu nag day jafe lool léegi ndax léegi euh, bu ñu bàyyee xel depuis mille deux mille treize wala ba léegi Sénégal dafa dugg ci commune commune commune communalisation waaw mooy dëkk yëpp léegi ay commune lañu. yi ci ëpp ay commune lañu wala bokk bokk nañ ci ab commune. su boobaa nag mbir yi day soppiku ndax dañoo waxoon ne commune rek moo koy sañ mooy sañ joxe këyit bi nga xam ne ci lañuy ñuy denc jafe-jafe boobu nag moo indi moo amoon léegi nag lañ ca tënk ca ndaje moomee waaw moom lañu ñu war a leeral tey jii ci jataay bii ñu toog ngir képp koo xam ne yàlla dogal na mu amati ku génn àdduna mu xam ne lii du waa mu xàddamatul ma ñoo ko imposé nit ñi ne leen fàww dangeen di def ndànkam du ne waa mairie bu tubaa ñoo imposé nit ñi ngir bëgg seen eh, seen i kayit ne da ngeen def nangam mm-hmm. waaye yoonu Sénégal moo ko gàll ci kaw bépp sénégalais ngir mu war a am yàggoon nañ ko gàll ci boppi sénégalais yi nag waaye euh, forcé wuñu leen ko woon comme ni ñu leen ko forcé jamono yi te li ko indi mooy lii ma wax ci tàmbali bi mooy faatu yi bari na ñiy jaare ci ginnaaw dem kalaame ji ne nangama ko faat bari na. Mm-hmm. ñi ñuy war a ji bari na te ñi nga xam ne ñoo yore atta bi ñoom it ay jullit lañ na di ay taalibe ni noonu bëgg sàmm itam war war may ñi faatu ni ñu ko bëgg a sàmmee waaye yoon nag jox na leen ci ñu mën a dem sulli ko faatu te bëgguñu loolu di am ñu ne nag kon nañ jël li nga xam ne mooy tax loolu bañ a mën a am mm-hmm. ñu dox ñu doxal ko ndax yu mel nii mi ngi bëgg a bari ci réew mi. kon daal sëriñ Fallou ci sar ci loolu. moo indi lu mel nii tey ñi ngi ciy jàpp bari na. ndax ñi ngi ciy jàpp mm, nit mën naa indi am néew kaso fekk ko ca. nit mën naa santaane ñu denc kaso ko ca. nit mën naa bokk sax ci ñi dikk seere ne moom nangam la kaso fekk ko ci. dañoo ñëpp nag mënoon nañoo moytu kaso boobee su fekkoonte ne jaaroon nañ. ci yoon wañ waroon a jaar. yoon yooyu nag lañ bëgg tey jii euh, mu leer ci bopp nit ñi. Mhm. ba kenn ku nekk xam lan moo cay wàllam. Mhm. fan la ci war a tàmbalee fan la ca war a yem. Mhm. lan moo ko ca war bu ko defee bu ko defut lan moo ko ca mën a fekk. ci loolu moo tax mu nekk ñun ñun ñi woon ndaje moom te yëg loolu. ñu bëgg koo séntu nag ak mboolem ñi nga xam ne ñooy suñuy bokki taalibe ba bu ëllëgee. yàlla mën noo defal nu mucc ci ñun waaye sunu bokki taalibe yi nga xam ne ak sunu bokki sunu kilifa yi bopp yi nga xam ne itam ñooy joxe ndigalul ñu denc bi ñooñu ñëpp ñu mën a mucc ci jafe yu mel noonu euh, jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne def nga ko mu jëm ci ndaje mi nga xam ne amoon ngeen kook kilifa yi doon waxtaanee rek lu jëm ci ni nga xam ne noonu lañ war a dencee ak ni nga xam ne noonu la yoon bu Sénégal tënkee ko nga xam ne benn jafe-jafe mën na cee bañ a am ndax ni nga ko waxee rek nit mën naa dem denc ba noppi yoon dal dal ci kawam ay sanction fekk ko ci ba mën koo tëj kaso te loolu lépp yaakaar naa bu leeree askan wi rek danañ xam bu baax a baax yoon yi nga xam ne ca la ñuy jaar ba njumte yooyu yëpp mën leen bañ a bañ a dal xam naa ci côté boobu sax la ñuy dugg euh, ak le président du tribunal euh, départemental bu Mbacké muy président Cheikh Niane président dégg nga sëñ bi lim leeral sànq Euh, ci njëlbeen sax ñu ngi koy wax ñu ne dañoo nekk ci réew moo xam ne euh, mooy Sénégal loi yi fiy dox dañ naan loi moom euh, lu général la buñ ko xasee voté moom ci ñëpp lay dal donc Touba bokk ci réew mi am na loo xam ne buñ ko wotee xasee dogal ci réew mi rek dañ ci war a tënku léegi ñu buggoon a xam yoonu Sénégal lan lañ tënk ci li nga xam ne moom moo jëm ci ñi génn àddina yoon yi nga xam ne ci lañ war a jaar ba leen ci ko ak yi nga xamante ni tey ak njumte bu ci amee wala sàmmanteewoo ak moom tey yoon mën nañ la cee euh, tegi daan ba kaso war na la ci mën a fekk. Ah, euh, jërëjëf euh, ñu ngi kàddu ci nuyu ñiñ fi fekk ci plateau bi mm-hmm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. di la sant bu baax nag ci dalal bi ñu dalal. Euh, ci barab bu tëdd bii di nuyu di sant di gërëm sëriñ Abdou Lahad Bousso ni mu ko waxee léegi sëriñ bi yàgg nañoo boole liggéey di sant it sëñ Maxtaar moom it macha allah rafetlu nañ liggéeyam ak xelam ñaan kàddu yëpp yuñ fi yëkkati suñ borom def ci tawféex ba liñ ci jublu. ci nit ñi mën ko dégg mën ko jëfe jariñoo ko yàlla defal ñu ko ci barkeb sëriñ bi di ñaanalaat bu baax ni ni nga ko wax sa njëlbeen sëriñ Mountakha mi tey jiite yoonu murit suñ borom yàggalaat ko fi loolu te wér di nuyu nag kilifay barab bii muy fii ñu nekk tey ci barab bu tedd bi mboolem kilifa gu fi nekk rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziar di la nuyu di rafetlu it liggéey bi fiy nekk waaw euh, ni nga ko waxee léegi rek euh, noonu la demee waaye sëñ Abdou Lahad Bousso bi ma ko dégloo dafa indi contexte bi moom martelé lool ci ni ko indee rafet lool it mën nañ ne campé na bi ci fànn yëpp mu leer nañ nañ nañ wax dëgg yàlla euh, déglu naa ko bu baax kon ñu ngi rafet lu baax nim ko indee ak ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu indee daanaka jataay ba mm-hmm. mooy waxtaan bi nga wax réunion bi mm-hmm. bi defoon ci mairie bi mm-hmm. ak sabab ya ak ña fa nekk lépp kon sëñ Abdou Lahad macha allahu rabbi ci kàddu gi ak intervention bi euh, li nga laaj nag effectivement sëñ Abdou Lahad kon man ci waxam laay sof mooy Sénégal euh, ni mu ko waxee rek dafa nekk ci am réew ci ci Touba dafa na ci am réew muy Sénégal mm-hmm. Sénégal nekk ci benn àddina benn benn seq ak ay réew mm-hmm. ñun nag Sénégal bi ñu yor tey euh, ay loi tënk ko mm-hmm. ñu ànd booloo tëral ay charte di ci dox euh, yàlla dogal nag tey fànn bi ñuy waxtaane muy yan loi ak yan yoon la Sénégal tëral ngir képp koo xam ne ni bàyyi ko nga faatu nga ñu mën laa denc te jafe-jafe du am. Mm-hmm. ci ña denc ak yow mi ngi denc ak denc nuwaay yëpp. Mm-hmm. lépp rafet. Mm-hmm. loolu am na benn loi de 1972. portant code de la famille. Euh, moom moo yor wàll wu. loi boobu nag bi nga xam 1972 lañ ko voté. mu yor lépp loo xam ne nii ci doomu aadama la jëm ci wàllu dundam. diggante dundam ak faatoom jaar ci digg bi lu mel ni ab sëy takk sëy am nañu yàlla wërsëgal la ñu am so diggante bi am ñu ko dul am waaye wax nga ko léegi ku dund moom ah danga nga faatu kon diggante dund ak faatu moom faw mu am ba mariage amee ci diggante bi it ñu xam ne lu yàlla tudd la ci nit ki kon bu ñu tënkee doomu aadama rek bu ko yàlla xasee bind rek du juddu am kon dee dina am Euh, sëñ Abdoulaye wax na ko jot nañu wax ay mariage ay jamono ak yu bari waaye tey li ñu indi moom mooy faatu gi mhm. kon dese boobu maanaam bu nit xasee faatu faatu boobu nag bu xasee am nan la ñuy def mhm. ba denc ko ci jàmm ak salaam te jafe-jafe du am mhm. ak it jàppandali ca mën a am diisaay bañ a am li ñuy wax lant administrative mu bañ a am li may njëkkee nag mooy li tax faatu gi war a tegu ci yoon maanaam hmm. diggante faatu gi ba denc gi hmm. faatu moom suñ boroom da koy yor hmm. denc gi nag ay doomu aadamaa koy def ñun fi nekkaloon dëkkandoo ak mbokk yi diggante boobu nag jafe-jafe bañ am foofu la ñuy waxtaane tey léegi li may njëkke kon mooy bu faatoo bu ñu yégee nit faatu na kan ak kan moo ci am wàll yaakaar naa li ci njëkk mooy yëgle faatu gi déclaration. nit bu faatoo ah danañ dugg ci kër yi ruq-ruqaan yi wax ne ah diw faatu na mbokk yi mën a ñëw jàpp ceeg am di jàmm yi. ndax kenn rek mënut a toppatoo am néew xëy na. ci lañ foog. déclaration boobu nag bu nit wax nañ ne ñi ko jege mbokk yi deret. ndey ak lépp laa mbokk rek. wax nañ ne koo xam sax nag yoon da ko yaatal am na information bu leer ak xam gu leer ci aj faatu ji. war na koo mën a déclarer. Mhm. waaye ñu joxaat beneen pàcc bu am solo ku ñuy wax chef de village. Mhm. ak délégué de quartier. li tax délégué de quartier bi nag duma ma ci sori day dafa nekk ndawul chef de village bi. Mhm. kon bu ñu nee chef de village rek yóbbaale na délégué de quartier. kon chef de village boobu wala parents yi mbokkam yi. bu ñu yëgee diw faatu na ñoom dañ koy déclarer. am na it ñeneen ñoo xam mën nañoo déclarer muy structure sanitaire yi. maanaam bépp kër docteur bu ñuy fajoo bu fa ak faatu amee yoon gàcc na ko moom it mu yëgle ko euh, police judiciaire maanaam police wala gendarmerie ñoom ñoom it ku ci nekk léeg-léeg ñuy wax la ak faatu moo xam accident la moo xam faatu goo xam dafa xaw a lënt laaj enquête ñu dugal ci police wala gendarmerie suñ ko ci xasee dugal wala mu dugg ci rek yoon joxe na ko également ndigal mu yëg la faatu kon boo seetloo mbokkam yi sañ nañoo déclaré faatu gi chef de village bi bi nga xam ne nii wala délégué de quartier bi mu nekkoon am ak ñëpp jàmm ñu xam ko fa sañ nañ ko déclaré hôpital bi nga xam ne nit faatoo na fa it directeur hôpital wala ñi yilif ba sañ nañ ko déclaré waaye police wala gendarmerie bi yoroon enquête bi bu dee faatu ko am lënt. bañ ba nekk seen loxo. sañ nañ ko déclarer. ñun ñëpp nag buñ koy déclarer officier état civil lañ koy déclarer. ndax moom nag la may mu bind këyit wu officiel woo xam. nit faatu na. bala maa sori ci officier boobu nag damay ñëwaat seen blaat bu mu waxoon. que ni loi Sénégal ñoo jël commune. jox ko armeel cimetière. commune moo koy moo koy moo koy gérer. Mm-hmm. Touba gi ñu nekk nag wax nañ ko léegi dafa spécial ñun ñëpp ñu ay taalibe Sëñ Touba. di mm-hmm. njaboot sëriñ bi fas yéene xool nag loolu lépp nan lay ànde mm-hmm. ba ni ko sëriñ bi bëggee ah loi bëgg ko ñu daje ci digg bi ba juboo ci. du am benn rëq-rëq. wax na ko léegi sëriñ Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba tey moo joxe ndigal bi mu yëgee réewum Sénégal ni ko sëñ Abdoulaye waxe moo wax ne nañ def nii ak nii ci ubbikoom koom mhm. ak dëppoo ak yoon ak bañ kenn am gàllankoor ak loraange mhm. ak jafe-jafe ëllëg ci ab suul mhm. tax moom it mu woo njabootu boppam gi waa xit ma bokk ci man mi ma bokk ci ak ñeneen ñu xalaat ci ba mu dëppoo kon bi ma waxee ñi nga xam ne sañ a déclaré waxit ne ay cimetière commune moo koy yor ci wàllu loi. Touba nag dafa spécial tax daayira Muxaddamatul Xidma ah depuis Serigne Saliou bu dee ci sama xam-xam leer na. Mhm. ñu dénk leen ko ñu ci lëkkaloo ak waa mairie lépp nag ci lu rafet. di mhm. sottante xalaat. Mhm. ba dara mos ci yëngu. moo waral kon ñu mën a daje waxtaanoon. léegi nag euh, dafa mat a ràññale. sëñ Blaat juñu na ko léegi. Euh, faatu. mën naa doon ñaar ñaari mbir yoo xam ne ni yu yu yu yu yu wuute doon. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ni mën nañoo faatu faatu ko amul benn jafe-jafe. Mm-hmm. waaye nag léeg-léegi am na lu ñuy wax mort suspect. Mm-hmm. wala daal ki ñu gis mu dee gis nañ ay màndarga ay signes yoo xam ne ni. wala ay mandarga yoo xam. ah ñaaw nañ njort ci dee kon ñaar yooyu mat te gis nga liggéey bi ñuy def. ak gataay bi ñuy def. Mm-hmm. ak réunion bañ def keroog. Mm-hmm. liñ ci jublu rek te yoon jublu ko ci. Mm-hmm. ndax yoon dafay nekk di gindi ak a defar waaye yàqut. lim ci jublu moom yoon ak ñun ñii toogaat fii di waxtaan. nga xam ne sëñ Abdoulaye wax na ko lu ci kenn ci coobare walla bàkkanam walla sañ-sañam ci la ñëw tëral dara lu bees déedéet. lim ci jublu yoon jublu ko ci ñun ñu jublu ko ci mooy suñuy kilifa. ak suñu mbokki bopp. Mm-hmm. ak suñu dëkk bii ñu fexe ba worma ji fi nekkoon sëriñ bi taxul mu sañ ci dëkk bi. Mm-hmm. ñu fi bàyyi woon ba ci kii fi nekk yàlla na fi yàgg te wér. worma jooju di dox boobu benn la ci. Mm-hmm. ñu ñu waral jataay bi am. beneen bi sàmm aar suñ kilifa yi. ak ñëpp ñoo xam deele nañ te war a bokk ci borom. bi ci njëkk ci côté wér gi yaram dafa am solo. am na lu fi jaaroon at yee sa ginnaaw yàlla bu mu fi amati muy Covid Covid 19. Mm-hmm. bi mu fi amee gis nañ ne kilifa yu bari ci diina ak ci aara. ak mm-hmm. ci autorité yu mag yi ci réew mi. Mm-hmm. bi ñuy faatu faatu gu bari gi ñu gëstu càmbar. xam nañ ne ci levée du corps yi daan am. ci hôpital principal walla ci armeel wala ci njaal. la leen Covid bi wàlle kon nit mën naa faatu. ñu woyafal jëmm ji. fekk am na jàngoro ju ne ci moom te ñoom dëkkaloon xamuñu ko. Mm-hmm. médecin amu ci yoon wala dara ki koy sang mu wàll ko sëriñ bi koy jiite di ko jullee mu wàll ko. Mm-hmm. wala bu sëriñ ba demul armeel ña fa jugee ñëw ci këram di ko sant ka gërëm di ko nuyu. Mm-hmm. wàll ko jàngoro ji newoon ci néew. kon problème mu santé publique nekk na ci. problème mu ngi ci wér yaram nit ñi nekk na ci. kon muy am solo ndax dama koy faral di wax. suñ borom bëggul ko sànq ak dundam te bañ a sànq sa dund bokk na ci wàllu wér-gu-yaram ak aar sa bopp kon benn ngi noonu beneen bi sëñ Abdoulaye wax na ko muy boo defee loo xam ne nii ah waroo koo def réewum loi teg na ne ku ku def loo xam ne nii dëppoowut ak li waroon am ay mën na caa am te ñun ñii bëgg nañ suñu kilifa yi bëgg koo xam ne nii déggal leen bu ñu sañoon benn yaraanga wala genn daan du jëm ci ñoom ba ca topp wax naa ko te moo jiitu moo mujj muy ma tubaa dafa dafa dafa am worma. ñëpp xam ko ba état bi ci boppam xam ko ñun ñi fi dëkk rawatina. kon sa njiit sa kilifa doo ko bëggal benn yara. moo tax nag sëñ Abdoulaye wax na ko ñu suul ba noppi. ay nit jaar ci ginnaaw ju ñu ko ko léegi. ndax dañoo xam. ne kii ka di ko faat ay dóor la wala poson la. Mm-hmm. wala yeneen sabab yi doomu aadama la mm-hmm. ñu rob ko Touba ba noppi ak mm-hmm. war ma dëkk bi ni mu mel ak sëriñ bi ni ko yàlla warmaale ñu ko fay sulli di ko génne di ko yóbbu di xoolaat donte yoon maye na ko ñun gënaluñu dëgg la léegi nag balaa ngaa def nag loo xam ne nii day day nuru xotti war ma donte yoon ko santaane ah nga prévenir maanaam nga euh, xaw ma nuñ koy waxee fagaru ba ah loola du am. kon yaakaar naa bu ñu seetloo kon. ñetti point yëpp wàllu wér-gu-yaram yi. jar na ko ñu teg ko ci sa ay charte ak yoon. wàllu aar sa bopp sa digganteeg say luwaay réew. ba duñ la jàpp yóbbu ne la da ngaa suul lee ndekete ayib am na ca. beneen biir war ma ëpp njariñ nag ëppul ñu solo ñun ñëpp ñun taalibe yi Sëñ Tuubaa muy dëkk bi. ñu bañ di suul kenn di ko fi sulli mm-hmm. kon ponk ñetti ponk yi rek jaar na kon ñu fes fas yéene mm-hmm. dëppoo ak yoon mm-hmm. moo tax ma doon wax ne sëñ Abdou Lahad campé na context bi waaye man laa rek li nga xam ne nii moom lañ ci jublu dëgg-dëgg di ko ci moytu mooy lii léegi nag ma dugg dëgg-dëgg nag ci sujet bi carrément ci procédure bi procédure bi c'est très simple Euh, dafa am benn article bu ñuy wax article soixante quatorze. Mhm. bu code de la famille. Mhm. moom lañ tiitre maanaam moom lañ moom lañ tënkee ne. Mhm. moo tënk lépp loo xam wàllu suul néew bu faatu. néew néew suul suul ku faatu rek néew. loolu nag dafa ràññale. ne bu fekkee ki faatu dafa nekk ci biir ab commune. wala chef lieu d' arrondissement. sëñ Blaat wax na ko 2013 ba léegi. dañu dugg ci communalisation. gox-goxaan yëpp ay commune lañ. léegi nag képp koo xam ne nii ci biir commune bi. Mm-hmm. wala chef lieu d' arrondissement bu ñu jëlee Touba gi ñu nekk tey ñu joxe fi exemple ndax ñoo tax ñuy wax. Mm-hmm. yaakaar naa arrondissement bi ëmb na commune de Touba Mosquée. Mm-hmm. commune de Missira commune de Ngay ak commune de Dala Ngaaw ak commune de Touba Fall. moo jërëjëf sama blaat muy juróomi commune. ci arrondissement bi. ndax ñun Touba la ñuy wax tey kon commune yooyu yëpp nekk ci biir arrondissement bi rawatina nag commune bii di Touba mosquée officier état civil rek rek rek la yoon may bu nit faatoo mu joxe ndigal nag laa wax ndigalu suul yi ndigalu suul yi maanaam bind këyit autorisation bi waaw autorisation bi mm-hmm. kon mën naa ko wax ci tubaab bala ñu yàpp ne Euh, kilifa yi sañatu ñoo joxe ndigal déedéet <laughs> kon autorisation bi waa permis mhm. maanaam permis bi nga xam mooy këyit wi ko war a suule mhm. officier état civil bi nga xam ne nii mhm. euh, ci commune Touba lay nekk moo ko sañ def foofu nag dañ fay jiital sëriñ Abdoulahat Ka mi premier officier état civil di premier magistrat de la ville waaw ah, sëriñ bi teg ko fi moom moomu mooy ki nga xam ne nii moo ci jiitu waaye nag am na ay adjoint ak ay officier délégué ñoo xam ne nii da leen a jox dara jaam jooju ñu koy saytul liggéey boobu kon lépp lu jóge ci biir commune bi lu ne ci biir commune bi wala ci juróomi commune juróomi commune yooyu ci arrondissement bi waa maire yi muy officier yi ñoom ñooy signé permis d'inhumer bi mm-hmm. léegi nag article soixante-quatorze boobu nag beneen xaaj bi ci toppaat ndax ñetti xaaj la ñetti pàcc la moom article bi mhm. deuxième pàcc bi dafa wax ne nag en dehors des commune mhm. bu xasee génn commune wala nekkatul ci biir arrondissement bi te ba sëñ bi la dox na ko lu jafe la léegi mhm. chef de village yi ñooy bind permis d'inhumer bi autorisation bi ñoo koy joxe léegi nag ma leeral ci chef de village yi Touba yi ndax keroog sëñ bi la dox na ko dajale nañ alhamdulilah waxtaan nañ ba déggoo ñoom dañoo am cër bu rëy ci loi ndax nañ organiser administration bi mm-hmm. président de la république moo jiitu sa kaw di jaar ci premier ministre wala gouvernement am mm-hmm. di ministre ci tënk gouverneur préfet mm-hmm. sous préfet ba ci chef de village bi chef de village institution la ku yoon jox cër la mi ngi ci organigramme administration bi kooku dama bëggoon mu leer euh, code la famille bi it muy loi de 72 bi joxaat leen tur bu am solo ci article 67 bi. Mhm. ne ñoom seen jëmmi bopp sax wax naa ko léegi ci njëlbeen dañoo war a déclarer décès yi. décès yi mhm. bu ñu faatu xam ci moom information yi. Mhm. dañu war a dem ba ca mairie ba déclarer ko. kon institution lañ bu am cër. kon chef de village Touba yëpp nañu xam ne seenu liggéeyu démb. tey la gën a yees tey la gën a dëgër. tey la gën a am Pastef tey la ñu leen ci gën a xaar. muy mm-hmm. fexe ba lëkkaloo ak seen délégué de délégué de quartier yi nga xam ne nii gox goxaan yu ruqi yëpp ci ci ci village bi ñoo fa ne. Mm-hmm. te yaakaar naa tey ku faatu am na délégué de quartier boo xam moom yëg na ko. Mm-hmm. délégué de quartier boobu bu ko yëgee dana ko wax chef de village bi. chef de village bi nag bu ko xasee ko wax moom day def déclaration bi man da koy bind. d'ailleurs sax am nañ ay formulaire ay imprimé yoo xam ne nii. danañ ko tas ci chef de village yëpp ba ci waa Baqiya mhm. ba ci waa daayru xidma ñoom ñëwoon ci euh, euh, réunion ba te yor féetewoo armeel ci ndigalu sëriñ bi mhm. ñu yor imprimé yi ba nga xam ne ku ci nekk dana xam ne kayit yi mhm. moom lañ war a defee nii donc chef de village bi bu faatu gi amee ñu wax ko ko moom am na formulaire buñ ko jox moom lay remplir jox ko parent maanaam mbokki ki ko di ki ko yëgal faatu ndax ku faatu moom doo doo lijjanti sa bopp dañ ñoo lijjanti lay jox kayit bi ñooñu nag am na ñaari yoon yu simple te loola keroog ba ñuy def réunion ñun ñëpp bokk nañ ci dégg ko mhm. mooy nañu dëppoo yoon waaye nañu woya falal waa dëkk bi ba kenn du am sa néew am sa naqar indaale ko mhm. ñaar fekk fa jafe-jafe ak yeexaay ak blocage mhm. day diis kon ñu fexe nag ba dëppoo yoon te dara du diis dara du jafe alhamdulilah Euh, monsieur le maire Abdoulahat Ka mhm. euh, ci xam gi xam dëkk bi mhm. ak di taalibe Sëñ Tuubaa ànd ko ñun ñëpp ak waa Xidma mhm. am na bureau bu mu créé yàgg na loolu waa Xidma dinañ ci ñëwaat ak waa ñu yor bàq ya ba mu créé ci buntu bàq ya mu bokk ci bàq ya nga xam ne ñoom dañ fay nekk di liggéeyal sëriñ bi ci biir bàq ya waaye nag këyit yooyu ñuy wax. Mhm. bu egsee ci ñoom sëñ Maxtaar dana ci ñëw. Mhm. danañ ci am taxawaay bu rëy ba jafe-jafe du am yeexee du am. Mhm. léegi kon chef bi bu bu joxee mbokki ki faatu këyit yi. ñu am ñaari yoon. su la neexee nga dem directement bàq fekk fa ñafa sëriñ bi teg ak monsieur le maire teg leen fa. nga jox leen këyit bi ñu daal lay suulal léegi. su la bu la fekkee commune ba moo la gën a jege. nga jël kayit chef de village bi dem ba ca commune ba waa commune bi signé la kayit nga dem présenté ko ci buntu bàq ya ñu ubbi la ba yaatu ànd ak yow defaral la nga rob ñibbi kon yaakaar naa jàppandal am na yombal am na ndax nit ñi dañ jàppandal rek commune ba rek nga mën a dem pour def ko maanaam commune bi sori ci ñenn ñi mhm. embouteillage bi xataa yu dëkk bi moo tax nag monsieur le maire ci boppam wut ñu ko ñoo xam ne doy nañ ko. Mhm. te alhamdulilah fekkoon nañu nekk ci daayira mu xam ne xidma di ay taalibe Sëñ Tuubaa mhm. yu bëgg war mooy dëkk bi mu wóolu leen def ay signature yu bare bare mhm. yaakaar naa bu ma juumut bis bu jot léegi dana fa yónnee cent ba deux cent signatures sëñ Maxtaar dina ci ñëw ngir bañ rek nit ñëw sa néew taxaw chef du jox la këyit wala it mu faatoo woon hôpital mu maanaam mu feebaroon nga yóbbu ko mm-hmm. hôpital mu entré fa mm-hmm. comme ni ñu koy waxee ci wolof mm-hmm. ah suñ borom moom ko ci coobareem médecin bi defal la moom it certificat médical boobaay su la neexee it nga jël certificat médical bi sax bañ a jaar ci chef du village ba indi ko directement it ci commune bi officier bi signal la wala it nga dem directement ci ki nekk ca bàq ya wan ko certificat médical bi moom it mu defal la ab kayit signal la ko nga duggu rob kon nga xam ne kon yaatu na lool woyof na lool dara desu ci ba ma koy tënk daal chef de village bi ci boppam ku faatu gox ba nga dëkk am na délégué de quartier war na ko mën a yëg te yaakaar nañu tubaab ñëpp xamante ci quartier yi ak bu ñu ko yëgee chef de village bi danaa la xaatimal aw këyit jox nañ ko jox nañ leen ñoom ñëpp ay këyit yu ñuy remplir nga dem directement Baqiya bu dee moo la gën a jógu mm-hmm. am na ko fa maire bi teg ak sëriñ bi mm-hmm. jox nañ ko ay signature yu bari yoo xam mm-hmm. boo ñëwee mosuñu nga dugg doo fa def sax daanaka diggante bu gaat am na nga bëgg bi moo la gën boo jógee ci chef village bi aku këyit bi mu la jox nga ca mairie ba ñu defal la këyit bi nga dem robi la la la la la nga fa téewoon mo sab mahat ba xëy faatu. médecin bi dana la defal certificat mm-hmm. nga indil ko waa euh, Bàqi wala waa mairie. Mm-hmm. ñu signal la nga dem. loolu it danaa ci leeral lu am solo. te it woowu nag waa Bàqi di signal. Mm-hmm. maanaam mooy autorisation bi. te waa mairie rafaatale leen ko maanaam jox leen ko. muy pouvoiru mairie. di moomeelu mairie waaye ñu jox ko waa Bàqi. muy këyit woowu. ak it këyit yu officier état civil bi signé ci biir mairie bi. c'est un parcours sans fin kenn du ci fay dara. Ah, kenn ma ci fay dara. waxuma nag yeneen la waxuma tournoi yooyu. Mhm. xaw ma ko waa bàqee yoo xam. Mhm. waaye li ma xam daal te wax santaane ko. Mhm. mooy autorisation bi maanaam permis d'humeur. kay li muy tax nga mën a sol. waa bàq ya dina ko jox ci ndigal waa mairie. wala waa mairie dinañ ko jox ci sa coobare seen coobare ñoom. kayit woowu ko dootu fay dërëm. bu ci kenn laaj kenn dara. yoon moo ko wax. am na it geneen faatu goo xam buñoon naa ko mooy mm-hmm. faatu goo xam ne nag moo xaw a gën a diis mm-hmm. mooy koo xam ne nañ ko gisee moom néew bi mel na dañ koo dóor wala faatu gi lënt na ci tënk mm-hmm. booba moom bu ko soow sañu blaat di ñëw ko ah man nga am gàllankoor yu jafe-jafe te fekk amoo fa nga jaar képp koo xam gis nga ne faatu jëmm ji lënt na wala jàpp nga ne loxob doomu aadama dugg na ci ci gàttal lu ñu loolu la ñuy wax mort violente. wala suspecte. même bu dee ci kër gi. na ko wax police wala gendarmerie ngir aar sa bopp. ak aar sax sëriñ bi nga xam ne nii moom nga war a woo wala sa kilifa gi ko war a suuf. wala war a denc. Hmm. boo woowee police wala gendarmerie ñoom dañuy ànd ak benn médecin. yoon may na leen ñu def benn réquisition ak këyit. Hmm. ne ab médecin ñëwal. mu ñëw ñu bokk saytu. bu dee amul benn jafe-jafe mhm. ah xel yëpp tal jàmm am su ko defee mhm. nga demaat yow ca chef de village ba wala médecin sax comme xool nañ ko jox la këyit mhm. nga dem ca waa ya ñu defal la autorisation bi wala nga demaat ca commune ba ñu defal na ko nga suuli bu fekkee ne am na benn lu ci ayib médecin bi dana demandé procureur ne ko man dama bëggoon def lu ñuy wax autopsie procureur ne ko bismillah bu defee autopsie ba mu wóor ne léegi xam nañ la ko rey hmm. ah bu dee nit a ko def ñu topp nit ka hmm. waaye néeg moom des na ko suuf ci jàmm ak salaam du am benn jafe-jafe hmm. foofa it dinaa fa dugg tuuti ndax néeg bu mel noonu faaw procureur bu police enquête ba pare ñoom danañ ko jox aw kayit wala ñu jox mbokk yi aw kayit ne leen dem leen ci procureur moom it mu signé benn autorisation waaye même kayitu procureur bu ko signé comme armée wax naa ko commune ko ñu da ngay jël kayitu procureur woowu ñëwaat ci mairie bi. waa mairie defal autorisation. wala nga dem ci bàq ya directement ak seen ñëw. waxoon naa ko léegi am na ñu fa mairie bi samp. ngir gaawal denc bi bañ a yeexal denc bi. ñu signal la nga dugg. kon kayitu procureur kese it li muy am am doole. bu dee ci wàllu faatu. pour ñu suul bosam rek doyut. commune bi mooy def armeel da nga jaaraat ci commune ba wala nga jaaraat ci waa bàq ya yi commune bi teg foofu ñu signal la. kon loolu day wax day day firnde li ma wax njëlbeen ne ah bala ngaa suul daal bu sa njort naawee pour nga ma yow ma mën a am bañ bañ a am benn jafe-jafe ëllëg ah jaaral ci fi nga war a jaar rek mooy yéegal procureur wala nga yéegal gendarmerie wala police bi la bi wala wala imam bi ku fa mën a nekk rek bu tiimee xam ne lii kat am na lu ci sëkk ngeen ànd yéegal ko autorité yi ñu saytu ko. après jox la sam néew nga suuli bu dee ñuy topp ñu topp. sëñ Abdoulaye doon na ko. duñ fi joxe ay chiffres duñ fi nekk di tudd kenn. waaye ñun ñëpp xam nañ surtout ñu autorités yi que ñu ngi ciy jàpp ay nit ñu bari ñoo xam. dañuy faat nit ba noppi dëxañ ko suul ko. alhamdulilah nag ñun fii Touba te farlu daay Moukhaddamatoul Khidma ak seen ndaw la fa nekk. Mhm. ñu ciy mucc. mucc googu ñu ciy mucc ba heure bi nag waaye nag àddina di dox fan yee bu ngeen fàttaliku sax mun taxaa wax na ko nee na dëkk bi ñu baax ngi fi waaye nag saay saay saa ngi dugg si kon fagaru jot na bàyyi xel jot na ci fagaroog bàyyi xel googu rek moo waral sëñ bi ah ci xelam mu rafet ak xam ak moom jamono ni muy doxe mu santoon ñu liggéey bi hmm. ne nañ ko ànd ak ñi ko war a àndal hmm. ah góorgóorlu ci ba nu nu ko bëggee Serigne Touba bëggee ko noonu mbokki boppam yi bëggee ko noonu. Mhm. waa dëkk bëggee ko noonu ñu defee ko noonu. Mhm. kon euh, yaakaar naa mën naa yemandi foofu. Mhm. ah su fekkee am na leneen lu ma fàtte. Euh, ñu mën na koo fàttali wala ay laaj yoo xam. danañ ko mën a leeralaat it. ñu leeral ko. ñu ngi bu baax.